del déglu del xool Feeling bi lay jox information yu leer Feeling Dakar mbokk yi suivre Feeling Dakar TV dalee nag jàmm Ousmane Sonko gannaaw bi nga xamee ni rek daal dinañ koy jàpp ci ay fan yu néew yu ñu weesu moom jiital Pastef nag daal dinay def ab Post daal di yëglu ci page Facebook ma ngay xam ne rek ni li mu jàkkaarloo ak en mbañeel goo xam ne am nañ ko ci wetam waaye itam ak ay fen waaye kàcc waaye itam di bundu xatal ab euh, politicien moom daal daal dinay xam ne rek ni ni ki tey jii dana daal di rek amal ab euh, grève de la faim maanaam ab xiifal euh, boo xam ni amul àpp ma ngi koy door nag ni ki tey jii ci dimanche ji moom Ousmane Sonko nag ma ngay woo ñi nga xam ni ñoo bokk ci parti Pastef wala sax ñu rek daal leen di denc ci kaso bi ma nga leen di woo ñoom itam ñu daal di entamé ab gérawub xiifal ngir rek daal di lu injustice bi nga xam ni daal di nañ koy tekk ci seen kaw moom Ousmane Sonko nag ma ngay xam ne rek ni du jamono ji la ñu war a bàyyeeku du jamono ji la ñu bàyyi la ñu war a bàyyi seeni loxo nañu continuer li nga xam ni rek moo di résistance bi nañu continuer xeex bi ngir rek moom Ousmane sonk dal di xamal le rek ni tey ji daal soreetuñ li nga xam ni moo di victoire bi nga xam ni rek moom luñ wut ngir changer réewum Sénégal moom Ousmane Sonko nag ma nga xam ne loolu ñi kii tey jii ci page facebook am nañu xam ne rek ni moom Ousmane Sonko ba ñu ko jàppee rek dañu ko daal di yóbbu fële euh, ca euh, BAC brigade des affaires générales bi nekk fële ci tribunal bu ndakaaru ki ko doon déglu nag moo di Omar Maham euh, Diallo nekk itam ab juge yoroon itam dossier bi nga xam ni moo ko doon lënkale ak Adji Raby waaye itam Ousmane Sonko lu ñu teg ci am ndoddam nekk na loo xam ni daal lu toll ci juróom-ñaari chef d'inculpation la ñu daal di rek daal di koy teg ci ndoddal Ousmane Sonko bokk na ci li nga xam ni rek njëkk moo di appel l'insurrection waaye itam bokk na ci itam atteinte à la sûreté de l'État waaye itam di woote ay trouble ki ko xam ne nag moo di procureur de la république ginnaaw bi nga xamee ni rek daal dinay amal ab jano ak taskatu xabaar yi ne ki démb fële ca palais de la justice wala sax ci tribunal bu ndakaaru ngir rek daal di expliquer li tax ñu daal di jàpp Ousmane Sonko donte sax ñëpp dañoo njortoon ne ab téléphone boo xam ni moom la daal di këf ci ab agent de gendarme ba sax ñoom ñi jàpp ni daal Ousmane Sonko dafa sàcc téléphone ba caanam ba nga xam ni